mbokk yi gërëm leen sant leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM tey émission gox bi di dalal ki nga xam ni moom moo di Ahmed Diop ñu gën ko xam ci Ahmed Diop mais Mouhamadou Diop deuxième adjoint maire commune bu Biscuiterie yi moom la ñuy dalal fii ci émission gox bi sëñ bi Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Mbemba maa ngi lay nuyu. di kontaan ci dalal bi nga ma dalal di nuyu seen auditeur mhm. di féliciter seen président directeur général. Mm-hmm. ci lii mu teg ak mm-hmm. conditions yi mosuma fee dugg bu ma fi duggee tey dinaa ko rafetlu. jërëjëf jërëjëf loolu moom maa koy def di nuyu sa technicien au mm-hmm. passage. di rafetlu li nga ñu invitation bi. weeru koor ak kii bi nu ngi ko gisee dugg nañ ci bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilah rabbil alamin lan nga ñuy wax un mot ci weeru koor gi. non balaa ma wax ci weeru koor bi maa ngi baalu ak képp ku bokk. <laughs> biscuiterie yi yaakaar te def naa leen naka sudul noonu mhm. di jéggalu di baal ñëpp ak te mhm. xam ni liggéeyal askan wi rek moo ñu tax a no au mhm. nom du maire Mouhamed Djibril Wade te fii ma ñëw moom moo tax ma ñëw fi ndax moo ma jox ndigal ma ñëw fi sañu ñu def wala wax au nom de la commune te tàgguwuñ ko waxuñu ko bu ñu ko sante nag dinañ ko def ngir njariñu askan wi wax li ñu xam bu ñu juumee ñu xam ni ñun suñu kàddu la du kàddoom alors di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ax ci weer bi nga xam ne nag moom moo di weeru sell bi di shahru ramadan di jégal ñëpp di jëgalu ñëpp itam alors sans plus tarder dañuy dugg rek ci waxtaan bi di nga xam ne nag moom moo jëm ci mbas mi naatablewul kenn nii mi ngi fi def ay ñombe si nim réew tey commune bi nga bokk euh, di Biscuiterie yi fan yi ñu weesu wala semaine bi ñu weesu amoon na kaawam bu njëkk ba tax na autorité yi tuddoon nañ ko li ba ngeen ko yëgee ndax da ngeen gën a yokk sensibilisation wu ñoom jëm ci jàngoro bi wala yan taxawaay la mairie bi taxawee ngir xeex jàngoro bi ci commune am. waaw jërëjëf Mbeba balaa maa dugg ci mbas mi. Mhm. Euh, damay ñaan les médecins ak ñu yor réew mi. Mhm. ñu bàyyi xel yeneen feebar yi fi am. mbas mi ñu ngi ci cinquante quatre jours. Mhm. normalement ñi ngi ci huit décès mhm. mais am na yeneen feebar yuy def ravage ci biir dëkk bi mhm. te bàyyiwuñ ci xel tabaa rek dina rey cinq millions mhm. ci àdduna bi loolu kaa boo xoolee nit ñi daw nañu hôpitaux yi kenn fajoociwul pour ragal ni tudd ni ñu waxee mbas mi mbas mi ba kenn fajootul nit ñi di tëgg seen kër nit ñi di dox di daanu di génn àdduna parce que ragal a dem hôpital la mais bu ñu duggee ci mbas mi. Mhm. ñun annoncé nañu sunu benn cas. Mhm. mais nit ñu ko annoncé dafa xawoon euh, doy waar ci ñun. Mhm. dañoo jóg ñun ñëpp ñu yeewu ñu ni ñaari tali am na cas. ngeen ko déggee ci ci annonce coronique bi ñuy def le matin à dix heures. madame Xemes duma ma fàtte tur bi parce que ne moo nekkoon médecin. bu Dakar. yàgg na. yoroon région médical lu Dakar. Mhm. mais turam moom dafay raisonné bi mu nee ñaari tali am na. da ngeen tiit wala. non di nga parce que boo gérer quartier. Mhm. ñu tëb ni la am na maire bi ñu koy woo ñu may woo ñuy woo CDS bi di woo ICP bi. Mhm. te ñoom kenn mënul la ci jox information mairie Grand Dakar di ñu woo ñun ñu leen di woo parce que on ñaari tali et à cheval ci ñaari commune commune de Biscuiterie ak commune de Grand Dakar. mais booy wax loolu. am na réunion de coordination am na médecin mhm. bu district centre mhm. muy docteur mbay ñu koy gërëm au passage mhm. amuñu benn information ci jour boobu day doy waar ñu koy gëstu di ko gëstu ba vendredi bi passé bi ñu demee réunion de coordination docteur mbay ni ñu couple la bu dëkk ñaari tali yëg ni feebar nañu ñu tëj seen kër dem hôpital Fann jëkkër ji conta condamné contaminé jabar ji mhm. ñu informé ñu ni tëj nañ kër gi dinañ ko désinfecté wax wax loolu mhm. moom am nañu nouvelle mu ni seen commune la nekk mhm. mais ba léegi mënuñu la wax ci quartier bii la nekk ci koñ koñ bii la nekk xëy na ñoom seen stratégie la pour nëbb ko pour ñu bañ koo divulguer mais daal loolu lañ ko njëkkee yëgee mais bu dee prévention bi ñun bi ñu faloo novembre la bi ñuy fal la maire Mouhamed Djibril Waat. Mhm. suñu premier acte bu ñu posé. Mhm. marché ngelaw toog na douze ans kenn mësu ko nettoyé. Mhm. douze ans mu ni nañ ko nettoyé balaa dara xew. avec le ministre Abdoulaye Abdou Karim Fofana. ñu koy remercier au passage. mu accompagner ñu ñu seeti ko mu jox ñu garantie ñëw sunu mairie ànd ak ñun boole ñoo colonel Maguette mbay de la gendarmerie. Mm-hmm. ak ses directeurs ñu def jomaay ñu def lépp li ñu war a def. Mm-hmm. ñu nettoyer marché ngelaw nettoyer marché mbabas. Mm-hmm. génnee fa ay tonu tonu mbalit. boobu loolu lépp doyul boobu xalaatuñu woon lii dina ñëw. mais bi lii ñëwee. pris soin ak CDS bi ñu yor centre de santé poste de santé bi ak madame l'ICP woo tous les corps yi mm-hmm. gravité au no niveau de la commune mm-hmm. ñu informer leen dem ci mbedd yi wër gox bu nekk def tapage médiatique wax leen nañu moytu nañu def lii mm-hmm. biñ fi jógee ñu woo ndax boo xoolee commune de Biscuiterie dafa bëri ay horaires horaire yëpp ñu convoqué ñu ñëw ñu toog ñu ni leen horaire amatu fi ndax boobu ñu ngi ay cas importés dëkk bi ay cas importé dëkk bi ñu ñun leen horaire amatu fi il faut qu'on arrête mhm. ñoom it ñu nangul ñu ko ni lu ngeen wax d'accord na ci on convoque les commerçants ñu ni leen ah ay la yëwan yëg ngeen li xew ci dëkk bi mhm. mënuñu leen a tere ngeen jaay mhm. waaye mën nañu jël ay mesures ak yéen bu ngeen ko nangul état dina tëj marché te boobaa da ngeen di gaañu ñu ne ñu man leen dama bëgg ñu xool ban heure lay marché bi di ubbi mhm. ban heure lay marché bi di tëj ci turu Mouhamed le maire Mouhamed Djibril Wade mhm. ñoom ñu xool ñu ne ñu yéenay suñu kilifa lu ngeen wax def nañ ko mhm. on a arrêté ñuy tëj six heures du matin ñuy ubbi six heures du matin tëj seize heures ñu dawal ñaari fan ñu ne ñu noon nañ ko waaj ñu leen buñ ko nañ ko yokk ba 17 heures ñu ne buñ ko wàññiwul du ngeen yokk par le président Macky Sall indi couvre bi ñu woo bàjjenu gox yi. on les de la situation. ñoom it ñu ni dañuy accompagner ñu woo les imams ñu mujjee ak les délégués de quartier wax leen ci li ñu war a def loolu mooy côté sensibilisation bi ci biir masse bi mais loolu weesul le maire Mohamed Djibril Wade jël ci dooleem ci dooleem waxuma ci doole maire bi. ci doole boppam ci doole boppam. Mhm. moom sax dañ ko xamee social. voilà loolu lay dund mënuñu. Mhm. dinaa leen may plus de soixante lave mais mhm. te ku nekk xam lave mais lu muy jar minimum soixante cinq mille. mu mën cee jël soixante lave-mains. def ko ci quartier bépp point stratégie yëpp foo dugg ci commune bi am na lave-mains. di nga raxasu di nga raxasu. di nga raxasu ñu ni loolu doyul. ñu commandé ci au niveau de la commune mm-hmm. valeur u onze millions et quelques mm-hmm. pour matériel lave-mains gel quelque quelque lave mais mm-hmm. ndax bi ñu ko njëkkee commandé doyul mu ni léegi bu leen jëndati man maa leen di may mu dem ci usine am may ñu plus de soixante lave-mains may ASM ñaari tali ngb ñoom ñuy xool ko ñu leen neex ñu koy def ñun ñu def point stratégie boo duggee usine de ñaari tali à waagu ñaay mhm. en passant par bopp bopp cité bisaab benn tali lépp ay lave-mains la mhm. bu ñu demee ba jeexal lool ñu seet les autorités religieuses ak les daara mhm. ñu yóbbu fa ay denrées bi ñu jëndee onze millions et quelques ci matériel gel ñu jënd presque dix huit millions ci denrée alimentaire. Mm-hmm. laata état di ñëw. laata état di ñëw. Mm-hmm. laata loolu lancé nañ ko jënd nañ ko. Mm-hmm. mais madame Soham Wardini ñu jox ñu quinze au passage ñu koy remercier muy maire ville de Dakar. mu jox ñu quinze tonnes ceeb. cent cinquante paquetu saabu. ak suukar cent. ak eau de javel bi war a ñëw complété lool ñuy xaar bu président Macky <laughs> laata ñuy yegg si bu président Macky Sall ci biir gox ba am na ay euh, li nga xam nag moo jëm ay daara yu nekk foofu marché bi ba tey parce que ñu ngi wax kaa communautaire ñu si bari ci commerçant yi nag ñu ne ñoom ñoo koy indi ndax yéen euh, au delà fermeture bi ak tëj bi ndax yéen a ngi saytu itam ci biir marché bi. Euh, daara yi laay njëkkee. on a xool nañu. ñaata am foofu. am nañu trois daara yu ñu recensé gul. Mhm. ak yeneen daara yoo xam ni seeni sëriñ. Mhm. xëy na ci ñun lañu bokk dañu tëj. yóbbu seen. élèves yu ñu dem seen seen dongo seeni waajur. continuer di fay seen personnel kooku kaawu daara la. ñu am daara yoo xam ni bi gën a mag cité bisaab la nekk. Mhm. kooku ba daara dul daara sax. kenn du génn di yalwaani mm-hmm. ñoom dañ leen di toggal mm-hmm. ñu dem yóbbu fa denrée yóbbu fa ay gel yóbbu fa lépp luñ fa war a yóbbu mm-hmm. saytu leen toog wax ak ñoom le maire moo ko def ñu jóge fa mu am beneen daara bu nekk ci doobaale gi cité bisaab ñu dem ñu yóbbu leen denrée yóbbu leen gel yóbbu leen lépp lu fa ay laame jox leen ko ñu dem bopp malgré daara privé la. mais ñun seet le maire nee na amul ay privé amul ay ndongo fa nekk. te ka yor bopp macha allah conditions yi macha allah mais ñu yóbbu denrée yóbbu fa ay lave-mains yóbbu fa lépp lu luñ fa war a jëf jox ko ko muy ndimbal bi. marché bi da nga wax lu am importance. Mhm. dañoo jël bunt bu nekk ñu def fa lave mhm. le maire commandé ay. masque masque. pour bu ñu xëyee. wër marché bépp jox leen ko ñu exiger kuy dugg marché. da ngay takk masque. yor ngeen ay garde fou yi saytu loolu. non ja a fekk au passage ñuy remercier police su HLM ak police su Grand Dakar. Mhm. premier jour bi masque yi génnee. bi ñu commencé amaan kenn xamul nu mu toll. ñëpp nag tiit mbedd yi sax dañuy sol masque. Mhm. parce que loolu la polis moo ñu ci gën dimbali moo ko gën a saytu. Hmm. ñaata masque ngeen génne pour jox ko. ñun le maire actuellement commandé na dix mille masques teg ko foofu. te tailleur yi nekk ci gox bi ñoo. tailleur yi nekk ci gox bi ñoo ñëw par groupe ku nekk première lot bi ñëw. Hmm. ay tailleur yu nekk marché ngelaw ñoo ne ko dañ ko koy jàppale ñëw ko jox ko. Hmm. ñi ci des mu génnee de gauche à droite ku nekk mu jox la genre frais sa tissu looy jënd def ko. loolu lépp ci alalam la. norme yi itam am na solo ndax yeneen koy saytu. non ñun xam nga nag Mbemba. Mhm. fi mu toll nii kenn du fi saytu ay kii tafal sa bakkan taf sa gémmiñ dem sa yoon. waaye itam norme yi da ciy baax nag masque boo gis rek sol euh, Mbemba. Mhm. norme masque bu jógul kër docteur nekkoon ci norme yi. ña koy ñëw kenn solul gant du mas non bu ñu dugg ci débat yooyu nañu muñ rek te takk te noppi boo saytoon norme yi. Mhm. doo dem. seetaan naa sànq benn tele gis benn maire à Thiaroye mi ngi wax boo gisee xale yi ni ñuy paasantee masque yi ak seen loxo di ñaw di kii loolu du norme mais itam day baax itam ngay jox nit masque ñu bañ ko di téye ci loxo yoo xam ne itam non ñun ñun yi ñu yor suñuy teer ci sachet la nekk ah, plastique mais manière boo ne saytu rek mhm. fañ koy defaree boo ko saytoo doo ko takk mhm. il faut que ñuy ñuy ñuy gëmm ci yenn yi mhm. nous des Africains man am naa yàqin ni feebar bi. Mhm. am na. mais am naa yàqin nitu feebar bi tu pour li ñuy bañ a wax. Mhm. fu Amérique di dem mille sept cent morts. Mhm. par jour. France am cinq mille morts par jour. Italie am six six cent ñii am sept cent ñii am leneen. dañu compter yi sax da leen di jafe. compter yi da leen di jafe. Uh-huh. te lii feebar bi di bañ yëpp ñun lañuy ñuy dundee. Mhm. ñun moom la ñuy dundee. Mhm. Mbemba. Mhm. feebar bi li muy bañ lépp. en Afrique au senegal moom lañuy ñuy dundee. te yàllaa ñuy suturaal déggoo deux morts par jour. ci cinquante quatre jours. huit. cinquante ma ne huit lañ ci am. ci cinquante quatre non huit c'est global. mais ma ni par jour deux morts. gisuñu ko sant yàlla la. dama ni bi Ebola bi amee. Mhm. tubaab yi dañ ñu koo bàyyee ni feebaru africain yi la mais saal. Mhm. kenn jàppalewuñ kenn yenu yanulawuñ suñu xew. Mhm. ñoo koy yenu ak suñuy médecin ñoom professeur Seydi ba mu wér. feebar bi nag am na de. am na kay mais yàlla daf koo jëmale ci beneen zone wan leen ni lii la. du ci Afrique daal. mais ñun li ñuy conditions yi ñuy dundee bu fekkee loolu la ñuy wax looy rey feebar ñun ñëpp dee nañu. yi. bu doon aaya bi bu wàccee moom. ci feebar bi nii la. ñun ñëppay dem. 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 commune bu Biscuiterie ñaari tali yéen a moomee kàddu gi ba tey dañuy wéyal waxtaan bi. Mhm. yaa ngi ko doon wax léegi léegi marché yeeg li nga xam ne nag moom moo di jëm ci masque yi daa mel ni yéen jël ngeen seen i devant ba tax na xaaru leen état ci dara. jëmbal nañ leen ci ay aide mairie Dakar jëmbali na leen ci ay denrées yéen itam génn ngeen yéen a ngi xaar bu état état bi dañ naan comité ciblage la def ndax yéen taxawal ngeen seen comité ba noppi ngir war a cibler ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yellool aju dund googu nga xam ne gouvernement bi mu koy joxe. Euh, xam nga ni jël ngeen seen matukaay matukaay du doy. da koy gën a yokk gën a yokk di gën a parfaire au jour le jour. Mm-hmm. tey jii nit mën na génn léegi ni la sama koñ amul lii. Mhm. xam nga ni kooku am na dëgg. bien mais parce que matul. Mhm. dañuy gën a góorlu pour mu mat. Mhm. li ci am solo ba am si solo. ji sunu comité de ciblage monté nañ ko comité communal. amul problème amul problème. ndax xam nga lu tax amul problème. liste la ñu arrêté la xam nga bu ñuy waxantee dëgg rek Mbemba. dara waru fee am problème. loo xam ne état moo la jox arrêté am. Mhm. waaye am na ñoo xam dañ ciy dugal ay mbirum politique yoo xam ne rax ko ci. non ñun dugal nañu mbiru politique. Mhm. mais dugaluñu suñu bopp. Mhm. dugaluma ko bokk le maire dugalul ko bokk PDS. buggaluñu ko bokku Dakar bugguñu ku dugg parti socialiste. ak taxaw Dakar. dañu xool. ñi ci bokkul ñu dugal leen ci. un député du coin. de la commune c'est maître Djibril War. ñu nu ko kaay fekkee. ndax yaa toogal Macky Sall ci assemblée. mi ngi foofu ñu dugal ko ci. bokk na ci waaw. Mhm. ñu seet APR la bokk. Mhm. ñu seet Alsane Cissé. Mhm. au conseil de la république. ñu ne ko kaay bokk. ci commune bi nga dëkk kaay fekkee yaa fekkal yaa nekkal Aminata Mbengue Ndiaye foofu. mu nekkal état. ñu xool Abdou Aziz Ndiaye. mu nekk conseil économique social environnemental. ñu ne ko kaay bokk te ñoom ñett ñëpp APR lañu bokk. kon amul looy nëbbu. joxal ma diw jarul xuloo ci yoon liste lañ la jox ni la nii nga ko war a joxe mais mhm. lan moo waral nit ñi di dugal li ci bokkul mhm. ah politique bi moo ci ëpp doole non mhm. ku ko ci def di nga am les conséquences bi ñu jógee ci comité communal bi ñu dem ci comité quartier yi ñu jox ko jox leen fiche bi arrêté bi génn ñu jël am na ay manquement xam nga lan mooy manquement bi boo nee délégué bi bàjjenu gox bi imam bi curé bi. Mhm. et y' a un élu au niveau du quartier kenn si dugal ci élu. Mhm. kon ñun suñu nekk nan lay nekkee ci quartier yi les conseils municipaux yi nekk ci quartier yi. Mhm. mënoon nañ ni comité de ciblage bu ne conseil municipal ba fa nekk wala bu dee ay ñaari conseil ñett nañ ci bokk mais état defu ko. kon suñu nekkin. dañ ko éva te ñooñu ñoo nekk ci base bi. waroon nañ leen ci bàyyi xel mais ñun dañ ñi ak les chefs de quartier. Mm-hmm. bàyyi leen ñu toog xool. Mm-hmm. mais amuñu ci poids benn décision buñ ciy joxe. commité de ciblage bi moo koy def. Mm-hmm. ñi ñu ciblé arrêté bi am ñun arrêté bi rek la ñu respecté. mais nag ñaan nañu les commission devant le préfet. ñuy bàyyi xel les les conseils municipaux ñu ciy bàyyi xel. parce que am nañu ñu si bari ñu ne euh, maire yi ñoom chef de quartier yi ñoom lañ àndal bu ñu fa toogee. maire yi lañ fa représenté ñu bëri loolu lañuy wax ndax li ne mel moo feeñ ca commune bi Biscuiterie am déet. non ñun bi ñu ñëwee dañ fa fekk ay chef de quartier. ok nag bu leen fàtte ni. Mhm. Euh, ñi def mhm. recensement bi. Mhm. am na ay fausses notes yu bari te les chefs de quartier la ak yenn responsable yi ko doon def léegi fausse note yooyu ci la loolu lañ bëgg a wax lan fausse note yi mooy da ngay dugg ci kër mbembaa am jabaram am taawam am kër gi ci topp mënuñu amuñu lu ñu lekk kenn amu fa est-ce que da ngay ay njuumte la njuumte la est-ce que da ngay continuer jox mbemba jabaram ak doomam mhm. bàyyi kër gi sote kër gële mhm. est-ce que mbemba du am générosité ni jamonoy mbas la mu bàyyi benn saaku ceebam wala ñaari saaku ceeb yi ñu koy mhm. jox ni jox leen kër gi ma dendal vingt cinq mille kenn mënu koo dindi mais saako ceeb bi nag war nañ koo mën a corriger. parce que fii nga fii nga toog ni fii la Lalla Aïcha Goudiaby toog mu ne moom dafa gis ay éréer ci li ni mel ndax euh, ca HLM am na kër yoo xam ne juróomi nit yi nga xam ne ñoom dañu am ci bourse fabe bourse sécurité familial bi ñoom am nañ ci déjà li ndimbal bi bu ñëwee ci ñoom dañ ci am mais am na ci kër yoo xam ne ñoom amuñu juróomi kër benn kër boo dugg juróom yooyu ñoom am nañ am na yoo xam ne kër kon donc comité bi est-ce que balaa ñu ko doon def jotul woon itam ñu boole ci yi nga xam ne yéen ay yi ngeen fekkee non loolu erreur la mais comité boobu ñu ko def nag c' était politique parti. au pouvoir la politique si bi ñuy def bourse familiale yi politique la woon. Mhm. mais conséquence bi mi ngi doog a feeñ. Mhm. politique la woon bu ñu fàtte ni bourse familiale mu ngi commencé ci APR. di nga ko bu leen fàtte ni ay jamonoy veyu élection lañ ko doon def. Mhm. ñëpp di wax se est politique c' est da ngay gis chef de quartier bu dugal ñetti nit ba ñeenti nit. Mhm. ci benn kër. war nañ ko soppi ah kon waruñu ko so war nañ ko soppi koo soppi mais bul fàtte ni mën nañ ko soppi ci kaw waxtaan. Mhm. ci kaw consensus. Mhm. mais bu ñu fàtte ni le président Macky Sall dana ñii ngeen may joxal man li ma jàpp. joxal ma diw joxal ma diw joxal ma diw la. kenn du la ci jam kenn du la ci wax leneen mm. mais nag jiw moo muy jox mm-hmm. moo war a am ngoru ni mm-hmm. sama dëkkandoo bi amul mm-hmm. sama dëkkandoo bee amul te man sama kër juróom benn saako ceeb dugg na est-ce que askan wi ñenn ñi dinañ ko xamee noonu ah ku am maturité xam ni réew mii kenn xamul kuy fekkee ëllëg yàlla rek a xam te lii dañuy ñaan mu jóg fi kon war nañ koo gën a mën a rafetal nekk bi solidarité rek moo ci war a génne ñun quartier yi amul doole ñun quartier yi amul doole solidarité mooñ ci mën a génne. Mhm. ku yaakaar ni mënal nga sa bopp yow rek. Mhm. da ngay nax sa bopp. ok ba ba tax na euh, gouvernement bi dina jàppale yéen itam génne ngeen war a jàppale tey est-ce que mën ñoon xaar ñëpp ñoo xam ne gouvernement bi jàppale wuñu leen te ngeen am ko mën ko ci seen commune ñi nga xam ne amuñu ngeen jàppale leen. Mbemba xam nga ñun nu ñu fas yéene doxane par le biais du maire. Mhm. Mohamed Djibril Wade. dañ ni. du joxe li ñu Dakar joxe. ñu jënd duñ ko joxe. bu ceebu Macky Sall ñëwee. Mhm. joxloon nañ ko ay nit nañu xool ñu ñu ciblé jox leen. jox leen jox leen jox leen ba mu jeex. Mhm. ñu xool ñi amul. Mhm. bu ñu mënee corriger foofu corriger corriger ba corriger bi të. ñu jël ceebu madame Soham Wardini ville de Dakar joxe ko. buñ ko joxee ba boobu jeex ñu jël sunu ceeb complété. bu ñu fàtte ni ak feebar bi. dañuy ñaan mu jeex te la vie continue. bien sûr yi ñu ngi doog a ci année yi. du je n'ai rien contre les maires ñii di wax damay génne deux cent cinquante millions ñii di génne lii lii yooyu mënula dem mm-hmm. ndax ëllëg am na mm-hmm. nañuy sóor ëllëg mm-hmm. moi loolu mooy suma idée nañuy sóor ëllëg dañu def loo xam ni lu tolloo quartier yi bokkul situation yi bokkul damay dégg sama maire di wax ñun yaa de la trois mois bu ñu buggee jàpp ci ndoxum teen lañu pomp ngeen di jàpp ci biir mairie bi ci biir Dakar. alors ah, doy na waar ak SDE. E, mu ameel mu ameel ñu xaalis bu weex tàll tëj sunuy robine loolu li ngay wax ni doy na dëggoo li ma la wax. Mm-hmm. avec l'arrivée du maire. Mm-hmm. la ñu defaat tout ba delloo si ndox mi fay te SDE fay ñu ñu fay leen léegi tuddatu sax SDE mi ngi tudd mm-hmm. xaw ma nan. seen o seen o ba léegi fay ñu sunuy redevance te ameel nañ leen ba ameel ba pare couper sunu ndox. ñuy gas teen di ci def. ci Dakar. kooku priorité am. Mhm. di wax génne naa cent million mosu ñooy joxe presque fourniture scolaire. Mhm. sunu prioritaire mooy sunuy élève nan lañ leen di former nañ leen leen di encadrer. Mhm. yooyu mooy sunu priorité bokk ñoo ñeneen ni priorité de. mais itam euh, génne ko itam jagleel ko ba mu daj ñëpp itam dana doon am solo moom loolu mooy sunu yéene. moom la ñu am ambition. ñun sunu première ambition. seetuñu lii li ñu wax lépp na kër gu nekk am ceeb ba pare nañu recenser les maisons mhm. buñ dee dix mille maisons mhm. ñu ni nañu jàpp dix mille maisons bu nekk cent kilo dugg na fa mhm. bu dee étage ñu corriger ci étage yi di yéeg par ki am jabaram ak doomam ménage la mu jëkkër ak jabar ak doom ménage la bien mais ki am juróomi doom ñaari jabar ménage la est-ce que ménage yooyu ñoo bokk c' est réalité. maanaam mm-hmm. donc ba na yéen a ngi ciy def. ci correction yooyu lañuy ñuy demander comité de base yi. Mm-hmm. ñu jéem ci xool orienté ci waxante ci. Mm-hmm. ñu teg ko ci table bu lee amee lu leen jaaxal bu ñu ñëwee ñun ñu corriger. ci regardu préfet bi ba léegi. ak comité local bi communal bi. ñu toog waxtaan ci. donc daal di nga jàpp ni transparence dina am ci mbir mi. Mbemba ceebu Macky sàll bi ku ko lekk fot mm. maire bu ci def lu jubuwul. mën nañ la cee ci doo dem élection local wala doo dem leneen joxe leen ceeb yi génne li ngeen yor dolli ci. Mhm. man loolu laa gis. ok ñu ne mardi sax la mbir mi na a commencé bu nu amee suñu xibaar ndax gëm nga ni mardi googu dina door joxe bi ndax askan wi euh, ñu si bari loof nañ lott nañ metti na ci jamono ji nuñ koy dundee ndax jotul itam mu gaaw génn. Bemba mardi lay ñëw yàlla ko yàlla mottali <laughs> mardi lay ñëw. Mhm. nañu seenu rek damay bañ nga woo ma ni loo ma waxoon loolu laay bañ. mooy loolu loo bëgg a wax foofu. suba la lundi. Mhm. te ñii dañoo am déficitu camion. mais yéen commune bi seen bos euh, gisagoo leen ko wala dégg ngeen ko. dégguñu ci dara ñun daal jàpp nañ ne buñ nee indi nañ école bu nekk sunu commune dinañ fa yóbbu ceeb bi pour joxe ko mu yomb. Mhm. jël ngeen ban stratégie ban stratégie lañ ko mën a joxe. Mhm. te daje du am yooyu la ñu nekk ak commité locale bi di ko xalaat. jël ngéen les devant parce que mesure barrière la ñuy wax rassemblement la ñuy bañ ñëw ba foofu ñii comme ni ñu koy defee ci mm. boulangerie yi <laughs> rang fii. heureusement nga xam li ñu koy def boulangerie est-ce que a ngi day bañ dara. Mm-hmm. dara. dara boobu muy créer moo yées la mu bañoon. Mm-hmm. boutique yi doon jaay mburu mm-hmm. moo tane woon lii di am ci boulangerie. boo demee léegi boulangerie Sandaga laa romb na mu mel jekkul jaaduwul. rang bi buuxante bi ci bunt bi boulanger boo rang ma romb bi nekk biir place de l' watu place de l' indépendance Albert Sarraut bi. Mm -hmm. rang baa nga ci tournalu Air France ba. mais loolu état ko créé bu ñu bàyyi woon nit ñi toog seen buntu kër yàlla bi jaay mburu <laughs> buuxante du ci am buuxante du ci am. ok dañuy. da uh-huh. ngay taxaw rek ni jàlloo jël si naa sama mburu dem dugg sa kër. donc faaw ñu xoolaat doxalin ñu xoolaat doxalin bi. Mm-hmm. loolu la boo demee benn tali la fa am jaaduwul jekkul. mais da ngay yéen tamit war ngeen si mën a jël. seen mënuñu ci jël benn la police. ñun dafa am li ñu moom ak lu nguur moom. kon seen compétence yeggul foofu. eggul ni tas leen. dañoo am am de boo ko defee benn xale lay wax lu la neexul le non mais itam mun ngeen wax ak borom boulanger ñu jël ay seen matuwaay nan la ñu mënee jël matuwaay yor nañ seen boutique ñoom nañ leen yër rek kay jaay mburu dañuy taxaw kay nit ñi ñëw nit ñi rang fii ba yëmbal ñi taxaw jox ma jox ma senegal xamul lu mu demee day na war de donc dañuy waxtaan dañuy continuer rek ci waxtaan bi euh, mairie bi mm-hmm. tey gis nañ ni NGB la ñuy wax ñaari tali biscuiterie Grand Euh, boole ci ay quartier yu am tur mhm. bëri na mais itam ndaxam euh, jote bi yéen a ngi dem ci euh, gox bu nekk rek la fa war yéen a ngi koy def ci NGB wala ci ci biir ci biscuiterie yi ci mairie biscuiterie yi bien sûr seen compétence yéen non biscuiterie yi mhm. du NGB. Mhm. non non dama ne NGB quartier yi. boobu ASC bi la quoi. ASC bi la NGB. ñaari tali bi laa wax. ñaari tali bi mooy commune de Biscuiterie mooy ñaari tali. waagu ñaay bopp bentali cité bisaab mi ngi commencé masaalikul jinaan mhm. jeexee station Castor ci euh, ci station Total bi foofu mhm. mi ngi jeexee ci côté ñaari commencé ci ñaari tali mhm. jeexee tali HLM Cheikh Ahmadou Bamba mu polariser quartier yooyu ma la wax moo tax da ngeen am ay quartier moo tax ma ne ndaxam tey xam nga di nga am ay quartier di def nii di def nii ndax euh, joxe bi mi ngi yegg ci quartier yooyu ban joxe ndimbal gi xam nga day defa ah, jàppale gi ngeen war a jàppale population bi comme tey mën nañu wax ni ak nawet bii di waaj a ñëw euh, assainissement bi euh, li ni mel fan fan ngeen ci toll tey ci commune bi euh, plaidoyer bi gën a mag sunu assainissement quartier mhm. mooy bopp bopp bu nawet ñëwee mhm. ndoxu dakaar yëpp foofu lay ñëw mhm. te bopp est à cheval sur Janaan ak jumaay Tukulóor bu masaalikul jinaan feesee mhm. nit ñi dañuy julli si ba julli si biir bopp ñu koy inauguré ci mhm. kër yi ci terrasse bi ci terrain bi ci jardin bi te jardin bi ndox yëpp fa lay ñëw ndoxu ban yi fa la ñuy ñëw mhm. loolu du compétence su maire yi bien nañ ko ga Lassana Gagny Sakho demande nañ ko maire ville de Dakar du compétence am mais dinañu ci jàppale demandé nañ ko ay autorité nawet bi ngi ñëw de mais loolu c'est mais ñi ngi force ñi ngi alerté quand même nañu alerte nañu pour ñu defaral ñu canalisation bopp. moo gën am solo. li ñuy def ci biir quartier yi. Mhm. sur le plan social du mate. Mhm. mais loo mën di nga ci jàppale nit. Mhm. ndax par le biais du maire ñaanuñu ko yàlla ku fa am naqar. boo ñëwee approché ko dinañ la jox. daara yi ndimbal dinañ jël corbillard bi def ci essence mettre ko à disposition yooyu yëpp dañ koy def ambulance la sax mais dañ koy utiliser comme corbillard pour dimbali nit ñi mhm. ndax loolu du rôlam sax mais mhm. mënoo toog quartier bu toll noonu plus de cent mille habitants nga leen di seetaan mhm. ñu am problème mu évacuation wala problème mu yóbbu ku dee ngay abbi bu ñu donc looloo gën a nekk seen jafe-jafe gu tar euh, foofu ci euh, commune bi nga xam ne moom ngeen jiite bi ci tar ba tar ba tar mooy canalisation bopp bu ñu defoon canalisation bopp defaat tali bopp. Mhm. paave yenn communes yi bu ñu tëddee nelaw ndax li ngay def ay détails la. Mhm. xanaa tabax marché ngelaw. Mhm. marché ngelaw 2 ak marché mbabas. fii lañ ko fekk mais dañ ko war a pousser pour mu gaaw. yéen a ngi ci ñu ngi ci amoon nañu ko gagné. mais nu ñu leen koy pousser ba teg ko ci condition ñu réaliser ko. ndax il faut que nit ñi changer habitude ak comportement. li ñu moom nañ ko jël li askan bi moom na ko jël li maire bi moom na ko jël. Mm-hmm. dama ni yow sa buntu kër nga moom mais mbedd bi maire lañ ko dénk. bien mais pression ak santage moom il faut mu jeex ci quartier. mais est-ce que askan wi yéen a ngi leen ni ñaax ci li ni mel parce que dañuy jàpp ne rek sa buntu kër waaw sa mbedd bi boobu tamit ay. borom ñaax ak euh, fulla ak fayda moo yor réew. Mm-hmm. moo yor gox. Mm-hmm. li nga moom. Mbemba jël ko. li ma moom bàyyee ma ko mhm. lu mu la jaral man daf ma koy jaral mhm. du ma xëccoo nag li nga moom mais li ma warit naa ko def ba ëllëg bu ma la nee bàyyi li ngay def mhm. nga xam ne li may wax am na fu ma ko teg am na ay entreprise yu nekk ci seen euh, commune yoo xam ne ñu ngi fa peut-être ñu ñu ñu ba ñu am doole ba ñu ñàkk am doole ndax ñu ngi contribuer ci RSE bi di leen si jàppale itam ndax li ni mel parce que juñu nga fi léegi benn euh, sd e, euh, ancien sd e, léegi seen SNO euh, problème yooyu ndax ñoo ñu ngi leen di jàppale SDE zéro franc jàppalewuñu domaine jàppalewuñu mais yóbbu nañ fa lave-mains parce que suñuy partenaire la bu ñuy def patante ñoom ñooy ñëw mm-hmm. ñun ñu jàpp ni jaadu na ñu yóbbu fa dara mm-hmm. mais par contre. Mhm. am na ci commerçant yi. Mhm. ñu ñëw jël seen alal. contribuer contribuer mhm. ci commerçant yi. ak ay quelque bonnes volontés. da ngay toog benn commerçant indi la ay tonne ceeb ni la maa la koy may. nga toog kii ñëw ni la maa jàppale la commune cinq cent mille. nga ñëw keneen ni la maa la jàppale ki ci mujj démb cinq cent mille la ki ci mugg beneen commerçante la hmm. ceeb la jox valeur cinq cent mille mu indi ko hmm. loolu dañ leen di sant au non du maire di leen gërëm mi ngi ñëw daal mi ngi ñëw hmm. mais ñi war a ñëw nag ñëwuñu te ñu ngi si bërëb yooyu gox bi toogoon naa beneen label buy def ndox woo ma ni ma dañ ñuy dañ dimbali mais ba léegi saatuñ leen. ñoom ñoo ma woo. ni dañ leen a bëgg a dimbali. man leen on est mais ñëw leen ngeen def ko ci kanamu maire. tey gox bi <coughs> euh, euh, Biscuiterie yi tey ba ngeen fa ñëwee am na li ngeen fa def ay jéego jéego yu gën a am solo toofu tey li nit mën a laal tey lan la. bi ñu ñëwee. dafa tombeek ouverture des classes. fekk nañ sax mu dem. mais on a senti que nous suñu budget mësuñu cee def dara. Mhm. mais li ñu njëkk a def mooy jël école bi. Mhm. école bu nekk ñu jox leen photocopieuse parce que ci loolu la ñuy liggéeyee. Mhm. jox leen ay rames de papier. commencé saytu école bi jox ko euh, tous les établissements primaires yi nekk ci ñun. bi ñu ñëwee xool nañ ni marché yi salte nañu salte goo xam ni jekkul jaaduwul. ñu jël leen mhm. mettre leen aux mu wax leen ni lii la ñu bëggee ku waratula lal fii waroo fee lal ku warul mhm. bi ñu fa jógee ñu saytu personnel bi mhm. on benn personnel pléthorique kenn daawul li tey jii mënoo romb usine te gisoo ko sol blouse di bale mbedd te xale yi ñooy daw si ci yéen ñooy daw si ci junni lii la ñu bëgg a liggéey parce que dañoo war a jariñ suñu koñ comprendre nañ léegi voilà ndax groupe bi ko njëkk a def maire dafa comp kontaan ba bokkul ak seen salaire mun leen maa leen may lii ci ay saaku ceeb ngeen jariñ ndax mi ngi poussé ñeneen ñi ñu ñëw def ko da ngay toog gis ku indi demande ni ma man bu ma amee bale mbedd sax nangu na te c'était difficile nga mm. dëkk ci koñ di bale mm. loolu kon ñi ngi poser ay at pour assainir environnement bi mm-hmm. def nañ déguerpissement pental yi boo fa daan jaar da ngay wane ginnaaw mais nit ñaa ngi dellu si waaye ñi ngi dellu si feebar bee tax amaguñ seen jot mm-hmm. te di ngeen. non amul ma dem ma dikk. Mhm. ma ni mënoo jël sa kër Mbemba nga moom sa parcelle. Mhm. jël ci buntu kër gi luyee ko coiffeur wala nga luyee ko ku fay jali mool wala ku fay jali leneen. Mhm. jaaykatu yàpp. te di ko fayeek bu ñuy dindi nga ne bul ko dindi. yow bu ñuy dindi nga taxaw làqatu fee eh, moi je du ma ko nangu. duñ ko nangu duñ ko doog. ba tax di ngeen gën a baral jéego yi daal. <coughs> mënuñu ko baral léegi. ndax mbas mi ndax mbas mi. mais après mbas mi. fu lu ci waay moom rek na ko jël li ñu moom nañ ko jël. am na loo xam ne tey mairie bi mbëbët na ko yéen a ngi ci ay chantier chantier yi tey fu ñu toll. chantier bi gën a mag. Mm-hmm. junj naa ko léegi. Mm-hmm. mooy pavage. Mm-hmm. même ba boo xoolee sunu commune yi dafa bëri suuf. moo tax canaux yi di bouché. ci PACASEN. ñun prévoiroon nañ sunu budget plus de soixante millions. pour uniquement pavage inscrire nañu. Mhm. éligible nañu. accepter nañu sunu lépp. Mhm. ba jox nañu li ñu waroon a am daaw ak li ñuy am dem. Mhm. benn virement. hors de kii ba ñu jël décision def virement de kii nu mu tuddati pour def virement de crédit du virement de crédit sax. Oh, euh, damay fàtte terme bi waaw dinaa ci ñëwaat. ñu jël plus de cent millions. dolli ko ci. pour def pavage. Mhm. mais sunu objectif numéro un. Mhm. garage su Géejawaay Koppe. Mhm. Ilo waagu ñaay jumaa ñaar tali commencé dugg ci royal yi. loolu moom sunu objectif numéro un. projet bi gën a mag. bi ñu def mooy pavage. réhabilité école yi ñu fexe chaque année le premier octobre ñu jox seeni fourniture seen lépp. Mm-hmm. mais pavage bi. Mm-hmm. ak problème mu bopp malgré bokkul ci ñun mooy sunu bataay numéro ok ba tax na di ngeen ci taxaw temm daal. par force la. Mm-hmm. mbas mais bloqué lépp. mais buñ ci jógee rek. yàlla nañ ci yàlla may ñu fekkee ko te tal ko. pour mën a suivre loolu. seen commune dafa bëri trop ay leaders yu nekk foofu. Mm. ñu si bëri dañuy def social ku ci mel nii Arona Coumba Ndoffène Diouf moom day def di génn ay social yu bari ndax yow ànd nga tey ni mi façon bi mu koy defee am lan moo ci sa xalaat. Euh, damay wax ni sociale mhm. ku nekk ci quartier danga koy def. Mhm. liiral wax naa la ay commerçant yaa ngi def social. Mhm. am na commerçant yoo xam ne jël nañu coppe fi ñu dëkkee di fa joxe saaku ceeb kenn yëgu ci ay kër. feebar bi kenn du ko politiser. da nga jàpp ni dafa am ñu koy politiser. waaw xam nga luy lan mooy politiser. Mhm. jël poubelle def ci sa photo. raxas lave nga def ci sa photo. théâtre la. billaahi théâtre la. Macky Sall ku ni ko woon di nga toog ak xalifa Sall du ko gëm. Mhm. ku ni ko woon di nga toog ak Sonko du ko gëm parce que feebar bi moo tax. bam naan l'heure est bi muy wax l'heure nit ñi di ko wuy feebar bi rek la ko mën a amee atu bu mag la ci am ouverture bu mag parce que du feebaru politique. da nga jàpp seen commune feebar politique. non non yaa cité nit. Hmm. boo ko situloon du ma wax parce que li muy def théâtre la mën nga dimbali nit te doo ci feeñ te doo ci wax xam nga politique bu jotee ku ne mën na politique. Hmm. mais bu mbir amee nañ ko saytu évaluer ko tey ji jëfam. Hmm. mi ngi doon gën a leer mu jël ceebam jël leneen ni monsieur le maire lan laa la mën a accompagner. moom ñëw na ci yéen. mësul a ñëw ci ñun. te bu xewlee invité le maire. duusu école duusu école primaire nan lañ koy inaugurer ci leader indi teleeg ñëpp te programme ministère de l'éducation nationale la il faut qu'on arrête Mbemba man dama bëgg kuy politique rek bu jotee ñu ah, def moom dafa ne mu ngi jàppale askan bi foofu bu baax a baax ci wàllum social parce que de saa bu lan mooy social euh, bu leen woowee rek bu ñëw fekk non non dama la wax lan mooy social ñun ñi dëkk ci koñ bi ge dawuñu ci koñ bi ñu ngi ci koñ bi ba léegi bi mbes bi amee ña fa dëkkul ña fa dëkkul wala ña foog ni dañ leen di wàll daw nañu génn quartier bi loo bëgg foofu moom nekk fa <laughs> anañu anañu ak sa leur famille anañu kon nañu war a soppi doxalin non loolu la réew mi laaj ku ne yaay falu ëllëg yàlla rek a xam mais nañ ko rafetal institution la ñu yor boo ko fralise fragiliser boo ko yoree dañ lay fragiliser il faut que les gens reviennent à la raison si un maître waar buñ ko waxee ni ko ñëwal bokk ci commission bu ko neexee mu ne awma seen jot je suis un leader leader mm-hmm. ku nekk dégg nga maître waar mais dafa bàyyi li mu am yëpp bokk classeur am ñëw toog le maire am l'esprit bàyyi la première adjoint deuxième adjoint ñu toog fële président bi moom mu jox ko les autorités de la l'APR parce que ñoo ko comporté woon noonu. kon daal su ma la déggee mooy maanaam ñoom lu ñu mënti def ci comité bi ñoom ñoo reste ni mel. bu jubee bu jaaree yoon nag bu. jaaree non non non ñoom dañ leen a woo rek. Hmm. pour wan leen ni li ñuy def amuñu luñ ci nëbb. ok li ñuy def nëbbuñu ci dara. Hmm. ceebu Macky Sall la na leer. ñi ko yellool na ko jot joxal ma diw jarul xuloo jarul xëccoo boo ko xëccoo rek am na loo ci nar mhm. mais man damay demander les leaders mhm. naturels yu dëkk ci commune bi mhm. ku mu neex politique ku mu neex def lu la neex mais nañ ko denc ba feebar bi jàll mais gis nañ itam Arona Coumba Ndoffène tànkam bëri na xanaa maire ko maire bi nga ko yitteel foofu non non bi yitteelu ko hmm. ah lu tax parce que base la bëgg pour sur le plan national bu leen fàtte ne Arona candidat la woon bu leen fàtte ni Arona doon na fi candidat élection présidentielle après mu xaw ma renoncé na xaw ma renoncé bu leen fàtte ni Arona candidat la woon biscuiterie Arona du lu bees ci biscuiterie kon biscuiterie daal pareegul pour Arona non ma xawma xaw ku pare yàlla rek a xam ñëw na à biscuiterie mhm. ñu dem élection locale taxaw Dakar a ko raw mhm. PDS a ko raw maître Waar a ko raw Ismaïla Gueye a ko raw Djibi Wade a ko raw mu ñëw en sixième position est-ce que lu bees la askan wi daa mel xaw nañ ko miin foofu non man bu ma doon politique hm. doon leader bëgg quartier bëgg maire mmh. génn ay région fi ma dëkk laay consacré sama doole hm. mais bu ma demee guy yàtt dem guy mbind woo leen ni leen am naa xaalis mhm. maa tabax tabax jumaa nangam dëkk bi maa tabax nu nga am nang maa yóbbu ceeb fële te sa quartier joxoo leen ko li nga bëgg mi ngi ko denc kon yow loo jàpp ci c'est l'après Macky Sall on en reparlera non du ma dugg ci débat non non du ma duggagum ci débat ah nga baal ma bugg sax li may développé ci moom sax maa ngi ciy jéggalu mhm. maa ngi ciy jéggalu donc am na yu bari yu. bëggaguma wax dinañ mës a waxi. léegi kon taxawaay bi lan la war a doon léegi. mooy ñun ñëpp ñu nekk borom porteur de voix lañ. nekk benn. ba feebar bi jàll après bu ñu dellee ku nekk dellu sa base ñu xool nu ñuy doxee quartier bi moo ñu ñor. moo ko ñor. moo ñu ñor nañu xoolee nu ñuy boolee suñu doole. def ko ba feebar bi génn. après bu ñuy xeexaat ñu xeex. xam nga ni ki nga xam ne moom moo di euh, Mouhamadou Djibril Wade comme ni nga koy sitee fii. Mhm. ki nga xam ni moom la remplacé moo di euh, ndem si yàlla Doudou Issa Niass yàggul. Mhm. mais ba ngeen fa ñëwee am na ay jéego yi ngeen fa def yéen jéego la. mais wax naa la ko léegi ki nga tudd nag mooy sunu père spirituel. Mhm. góor gi Doudou Issa Niass. moo yar Doudou moo yar Djibi par le bier de la l'ASC ñaari tali à l'époque man moo ma yar man bi may nekk responsable jeune. moom mi ngi nekkoon syndicaliste représenté per Madia Diop synthèse au niveau de notre coordination ak mhm. Boubacar Thioub mhm. mu yar ma may nekk ak moom ma nekk conseil municipal en quatre-vingt-seize mhm. kon yow daa mel ni miin nga kër non miinu ma ko mais xam naa ci tuuti ndax après dafa am benn dama génnoon ci réew mi benn moment de deux mille bi ñu nangoo bi PDS faloo nangu seen mairie ma dem sama yoon moo ñu yar ñun ñëpp yàlla ko yàlla xare àjjana muy góor gu baax mhm. góor gu mën nitam mhm. góor gu ñu yar ci social mhm. koo xam ni social rek lay dox maire bi pour moom loolu sax moo doon mag ñu njëkk ñi mooy Mamadou Diop boo daan ñëw maire da ngay toog social la boo doxee dakaar ba li ngay dóor matul nga dem foofu dugg Amed Pa Amed Dieng ragle la wala Pa Kader Sabara yàlla na leen yàlla xare àddina ak ñoom Mamadou Diop loolu la ñu dundoon ñun bi ñuy xale du woon ay xaalis du woon lii mhm. mais bi mu ñëwee aussi yar nañ ci cadre bu baax mhm. te suweem yëpp moo doon ñu nekk benn mhm. yëpp li mu tëdd ci la lépp daf may woo ma ax ma nekk leen ci benn mais bi mu fi jógee ñun teg nañu ay jéego administration bi mu ngi tegu ci yoon ñu ngi liggéey boo laajee ñenn ci population bi. Mhm. yàlla xam na ak yonent bi sentir nañu ñi ngi dégg suñuy félice. nee naa la kenn mësul a bale mbedd usine. Mhm. te ñu ngi koy def douze ans nettoyé ñu marché ngelaw. école yi mësu ñoo jot seen mhm. affaire. secours pag yi. mbaal gara nga lax amul. budgétiser woon nañ ko. joxe nañu. am na ñu am am na ñu amul mais ñi amul kenn du ci mer parce que ñi amit dañ koo teg ci critère dañ ñi képp ku fa dëkk di fa yeewoo di fa voté am nga droit ku fa dëkk nag tey voté beneen commune demal beneen commune jox la parce que day pousser nit ñi fi ñu mm-hmm. dëkk ñu fiy voté di fa doon ay citoyen biñ ko defee yàlla suturaal nañu kenn kaasu ku ñëw ñi ñëwul sax dañ leen a woo téléphone maanaam transparence ngeen bëgg a wane foofu. loolu la ñuy bu bëggee. Mhm. lan ñun. Mhm. commission sociale bi na def li mu war a def. administration def li ñu war a def. Mhm. lu ci manquement am ñun commission sociale bi ñu porter combat bi. dafa mel ni euh, Djibril Wade dafa am benn touche bu mu ñëw indi ci commune bi. bu mag bu leer bu limpide indi na ko fa. ba amul parti bi laa bokk. amul parti bi laa bokk. bu ñu gisee bi ñuy départ. Mhm. di nettoyer marché yi. Mhm. marché Mbabas marché ngelaw. Mhm. di def des désencombrement benn tali. Bourguiba bi. on a vu des gens yoo xam ni bokkuñu ci ñun. ñëw nañ jàpp ci ñëw jàpp ci. ñi ay xale yu am compé jàpp ci li ñuy def yëpp te bokkuñoo ñun parti. est-ce que dañ leen a war a seetaan. dañ leen a woo ni leen indi leen seen kayit ñu jël leen. le maire mun leen nañ leen jël. parce que xàmmewul xej ak seen. ndax loolu taxu ko non loolu la doon dund mhm. du affaire mairie bi ku yaakaar ni mhm. taxawu dakaar la dangay nax sa bopp mhm. ku yaakaar ni PDS la ba nga foog ni Djibi Wade doomu Ablaye Wade la ak jarbaatam nga bëgg a def lu la neex dangay nax sa bopp on est là pour les populations seetuñu ci xejj ak seen li ñuy def dañ ko war a def pour askan wi askan wi la ñuy jaamu dafa am koo xam ni suñu conseil municipal la ku fa nekk ku tudd Baara Sarr mhm. day wax ñun jaamu askan wi ñun jaamu askan wi la bu ñu defee nag neexul askan wi ñu ni ñu jóge leen fi ñu dem mhm. bu ñu centré li ñu def neex na leen ñu formé waat bu fa dem ñu def ko mhm. man loolu laa jàpp projet yi projet mi ngi fa kon ñaari tali parce que gis nañ terrain ñaari tali bi euh, kenn xamul tey lu muy ndureel ndax chantier mun nga ñu wax lan la parce que niñ dañ ciy romb ab gët lan la fa mairie bi fas yéene def. Hmm, foofu damay remercier le président Macky Sall. Mhm. man mii di wax ak yow en deux mille. Mhm. maa dem Sud FM interpeller le président Abdou Diouf. Mhm. ci terrain bi. mun ma boole naa leen dem si yàlla si Dansokho. dara. lay Wade di ñëw muy papa yi Doudou Wade. di papa yi Djibi Doudou Wade nekk président koo koy suma grand. Mhm. suma kilifa. amuñu terrain bi. Mhm. ñu toog ba deux mille dix neuf. Mhm. Macky Sall jël décret. contresigné par Boun Abdallah ak moom. par le biais de Amadou Ba ak yenn doomu usine yi ba ñu jox ñu ko. dañ koy gërëm. sant ko tatagal ko te dinañ ko rendre hommage ci loolu mu def. loolu loo leen ci fas yéene def. lan la ñu mën a def ci. terrain bi. terrain la. maanaam stade ngeen koy tabax. non stade mënu fa nekk. mais mën na doon terrain boo xam ni d'entraînement. Mhm. pour le président boo xoolee li muy dépenser. Mhm. moo tax club Sénégal dafa metti mhm. kooku digression la ci football bi nga ma dugal. terrain bi. les tàggat yaram ci gox bi la boo waaw parce que. nit ñi dañuy wax équipe bi équipe bu quartier la. kenn nit a kay génn benn bailleur la ñu am à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent. Mhm. c'est le président Mohamed Djibril Wade moo koy génne. Mhm. buy fay location jour yi bu fay terrain d'entraînement. Mhm. tey ji boo xoolee li ñu footballu goog léegi mën naa ni xaw ma poche xaw ma leneen mën na épargner quatre millions par mois presque par mois wala par euh, lu ko ëpp. Mhm. ndax dina fay demi salaire. Mhm. mais bu ñu Macky sàll mayee loolu. Mhm. ni nañ ko def terrain pour la jeunesse commune bi la ko may mais par le biais de ñaari tali ndax ñoo doon xeex seen xeex. nag mooy club bi mooy club bi. mais le maire ak ouverture am ñëpp la ci boole. ndax moom bi boo déggee Grand Dakar biscuiterie yi. Grand Dakar ñaari tali biscuiterie yaa ngi koy wax sax muy NGB mhm. dafa jël waa biscuiterie mhm. waa Grand Dakar waa ku nekk mu impliqué la mu impliqué la woo les ASC nawetaan ni leen kaay toog ngeen doon actionnaire mhm. mais boobu ba léegi kenn déggagu ko woon dégloo mais tey ji am nañ possibilité def foofu terrain gazon synthétique da mettre nañu en accord ak Sénélec ndax ñun ñoo moom terrain bi Sénélec tabaxee lële li mu tabax sunu yëf la mais comme intérêt comme la. Mhm. mënuñu leen ne arrêté leen génn leen. nous mhm. sommes des citoyens responsables. ñu toog wax ak ñoom. malgré li indi loolu képp kuroko bi directeur SICAP bi fi jóge la woon. Mhm. moo yëg ni ñu ñu koy jox mu jaaye jaayanteeg ñoom ba dugganteeg ñoom noonu du ma dugg ci fond débat bi. jaru ko mais. ñoom aussi ñu trouver terrain d'entente pour ñun ñu def foofu gazon synthétique. Mhm. li ci des ñu xool nan lañ koy defee pour le quartier. Mhm. ndax boobaa dootuñu fay entraînement. Mhm. ñu permettre ñuy am ressource. pour bu équipe bi yeneen yi di kii. ñoo entraîner ñu mën a dimbali les ASC du quartier. apporter commune bi yenn yi. loolu rek lañ ciy jublu. mais dafa amoon quelque blocage ak Agirout. ñu ngi leen di demander li ñuy def c'est l'intérêt commun mhm. laaluñu kenn yàqaluñu kenn ñu mhm. may ñu ñu eggale loolu daal la ñuy ñaan monsieur Ndiaye waxtaan bi neexoon na itam am na loo xam ne euh, laajuma la ko mhm. te yow am nga ko yéene bëgg wax may lan li ma man nag liñ may laaj rek man moom li ma bëgg dafa bëri mooy ñëpp nekk jàmm te ñuy ànd ci dëgg di wax dëgg di def dëgg réew mee toll foofu mais may ñaan les hommes politiques. ak leaders yu nekk usine. nañ leen xam ne sunu quartier ñoo ko moom maa tey amatu si nañ leen boole sunu doole. est-ce que doole lu woo itam tey ñoom ñëpp ñu ñëw accompagner mairie bi ci dynamique bi mu nekk. non doo ci woo kenn ndax Macky Sall bi muy def la muy def ak ñee def na ko mais loolu moo war a doon états uni bu mooy moo moo war a doon Sénégal bu ndaw ci biir communes yi. na ñëpp ñëw ñu ànd def li ñu war a def. njëriñu askan wi. jàppale les jeunes jàppale les femmes mais li ma gën a amal solo. maa ngi gërëm. conseil municipal bu Biscuiterie yi. ndax. Euh, xanaa tiraillement amul ci vote. non non non depuis l'événement de Djibi Wade. am na ay borom sommité. yu fa nekk ku mel ne Ndiouga Sakho nekkoon directeur gén président directeur général u nekk ville de Dakar lu bëri bu koy def ku mel ne Ndiaga Dieng premier adjoint mhm. ancien secretaire général u ISRA mhm. ku ku ku mel ne Mbodj Dieng bi nekkoon LONASE mhm. am kàngam de ku mel ne Awa Janoor une grande dame boo xam ni ci plan femme développement lay liggéey ku mel ne ajaratu Kumba Ñang muy femme de terrain ak ñeneen ak ñeneen xale yoo xam ni macha allah ay ngóone ay ne ay galaay ay zalbe ñoo xam ne ñëpp. Mhm. autour du maire. Mhm. intérêt commune bi moo tax moom moo ñu tax a jóg. mënoon nañu xëccoo ak mel ne oustaz àlla oustaz bi ma la doon wax sànq. Mhm. dugguma ci dara ñoo ñëpp ñu ngi fi boo cité da ngay dañ lay wax cité woo ma. am xale yuy liggéey au niveau de la commune. xale yoo xam ne. xaaluñu ci dara ñu ci dara accompagner la maire. bi ñuy ñëw ci commune bi presque fenn amul woon làmp délégué quartier yi dañ ñoo interpellé. léegi fépp ay tàq. fépp bopp. depuis ñuy commencé tabax Masaalikul naan tàkkul ba ni mu paree tàkkul mhm. ñun taal nañ ko ñaari tali koñ boo romb tàkk na benn tali de même mhm. ñaari tali daal léegi ñaari tali émergent quoi non pas du tout ça reste beaucoup beaucoup de choses wax day leer de mhm. ça reste beaucoup de choses tey jii sama satisfaction ma doon wax ñaari tali émergent pavé naa koñ yëpp pavé ko ñu benn ci te ñi ngi ci mhm. bu ma pavé woon tey ji ko ñu ñaari tali yëpp ko ñu benn tali yëpp dugg cité Bichab def fa assainissement pavé ko mhm. non bu ma neexee bu ma fi yemee sax mën naa bàyyi politique le mën naa ni nañ dem bàyyi keneen def parce que li ñu war a def def nañ mu nekkoon lu am solo sant la gërëm la ci sa nit ñu nangulee invitation di gërëm itam maire bi mhm. bi ma ko woowee euh, daf ma wuyu wax ak ma ne ma naam duma mën a ñëw danaa jàpp dinaa la yebal euh, yow it depuis lors vraiment yàqoo ci dara. di la sant itam di la gërëm bu baax a baax. ci ni ñu langulee invitation mbokk yi. gox bi fii lay euh, yamandi ba dimanche bii di ñëw ci beneen invité incha allahu rabbi